dialogue politique bi li tubaab wax nous sommes restés sur notre faim maanaam euh, am na ay diego, mais vraiment des Liñ ci doon xaar yépp defe euh gisuñu ko ci parce que deug la amna ay diego, mais vraiment nous sommes restés sur notre faim sur beaucoup de choses euh, ci diego yi mën naa ci wax li nga xamné opposition bi da ko mos a jàmbat mooy fichier bi baxul war nañ ko auditer te ñi kay auditer dañu wara nek ñu fété wul fenn Lolu amna accord bu ci am en ensuite processus électoral bi tam fa am ay njuuj njaaj euh, loolu d'accord nañ càmbar ko évaluer loolu la opposition bi doon laaj loolu defe naa loolu am nañ ko ci dialogue politique bi beneen bi mooy bi euh, askan bi doon laaj aussi muy que ne maire yi ñu leen di falal suñu bopp ndaxte ñëpp xam nañ ne si askan bi daanul fal maire askan bi ay conseil la daan fal conseil yi dajale euh, fal maire te si loolu lu ne xaj na ci ay njuuj njaaj yu bari daan na ci am ba nga xam ne askan bi du ki mu voté loon jàpp ne mooy nekk maire moom mooy nekk maire même à une heure de l'élection du maire mënoon na am ay manœuvre ay manigance ba nga xamante ne ku ëpp xaalis sax mën na nekk maire loolu aussi léegi askan way faral seen bopp maanaam raw gàddu lay doon ci xob ku ëpp xob euh, jàll beneen bi mooy euh, affaire parti politique yi ñëpp xam nañ ne dafa jéggi woon dayoo parce que ku jug rek créer parti dafa yomboon léegi xaw nañ ko diisal tuuti ba nga xam ne pour créer parti léegi am na système mu parrainage il faut nga am un certain nombre de signatures ci certaines région donc indi nañu wàllum parrainage ensuite nga am siège ngay tenir say congrès euh, bari na yuñ si dugal ba nga xamante ne léegi créer parti politique dootul gën a yomb créer GIE wala association loolu je crois que am na aspect bu ci am solo am na leneen lu ci am muy euh, acquis aussi mooy euh, affaire euh, article euh, ki loi 78 bi nga xamantene ku wara marché def marche euh, préfet mën na ba dernier moment interdire ko do am recours bi ci war parce que bala ngay dem ci juger référé mu tardé ya dugal nañ ci ben disposition bo xamné dina jox préfet fay am obligation tontu la ci ñetti fan avant marche bi nga xamné yow bu la neex nga def recours ci ci ci ci ci ci juge de référés mu mën a tontu jox la dëgg wala mbañ la jox dëgg yooyu mun naa ne entre autres nekk na ay acquis mais yi nga xam ne des na euh, te nga xamante ne moom laay wax ne euh, nous sommes restés sur not faim par exemple article quatre-vingt bi nga xam ne day tax ñu tëj ku ñu jug rek ne la offense au chef d'État tëj la boo dee parti euh, boo dee leader politique mun nga wax dara sax ñu ne la ah, article quatre-vingt tëj la wala ngay activiste ñu ne article quatre-vingt offense au chef d'État tëj la wala menace Eh, eh, eh, de l'ordre public etc. cetera loolu amoo amul amuñu si jeego loolu recommandation lañu def bàyyi ko ci loxo président de la république beneen bi mooy arrêté Ousmane Ngom ñëpp xam nañ ne du yoon du dëgg ñi fi nekk tey jii di bañ di bañ ñu marche côté place de l'indépendance ñoo fi nekkoon di xeex arrêté Ousmane Ngom tey jii ñu bañ ko je crois que du dëgg du yoon waroon nañ ko mën a rek ci dialogue bi ba nga xam ne Ousmane Ngom Euh, dañ ko fiy jëlé parce que sénégalais bu nek war nga mëna a marché fépp ci territoire national sénégalais bobu tamit amuñu ci accord ñu ko jox président la benen bi ma koy tejé moy affaireu ñi nga xamné tay dañ leen genn ci langue bi politique bi euh muy Karim wad ak euh, Khalifa Sall wax que ne ñom dañu perdre maintenant sen droit civil ak sen droit politique bobu tam dañ ne dañ koy jéggal euh, recommandation mu lu indi dal ci langue politique bi ñu jébbal ko président la République loolu waroon nañu ko mën régler parce que vraiment Sénégalais bu nekk am nga droit war a mën de présenter wu ci élection yooyu mooy euh, li nga xam ne mën naa jàpp ci tënk ak suppression parrainage ci élection locale yi ñu jëlee fii parrainage loolu aussi amener solo quand même D'acte, élection locale mosul woon am filtre ni jékki-jékki bëgg ci boole ñaari filtre muy parrainage ak caution do na bari et puis de kon le fait ñu parrainage yi dina tax Euh, mu bañ a metti ci ñi bëgg a nekk ay candidats. mu amuñu si accord loolu tamit je crois que bokk na ci lu tax ma ne on est resté sur notre faim lu chef d'état chef de partie loolu ñëpp ku nekk ci nguur gi bañ ko ku nekk ci opposition nangu ko alors euh, loolu tamit problème la bulletin unique aussi nga xam ne ku nekk ci nguur gi bañ ko ku nekk ci opposition bi nangu ko boo demee ci nguur gi bañ ko. alors il y a ci point de désaccord Le statut chef de l'opposition également Nous, ngi ci euh, constitution depuis même nous suñu ko jëmmal tey jii coow li statut chef de l'opposition erreur je crois que euh, nous devons différencier le statut de l'opposition le statut chef opposition l'opposition. malheureusement le statut de l'opposition euh, nous devons coow loo xam xaajale euh, euh, opposition bi di leen néewal doole te dëkk dafa laaj opposition quand même dëkk moom dafa laaj démocratie boo gis dafa laaj un pouvoir et une opposition am nga statut de l'opposition bu ñu koy wax mooy ak ak yelleefu opposition loolu tey dafa doon yoon ñu jëmmal ko ndaxte opposition dafa am droit ci dëkk tey bay xool opposition bi amul accès ci média détail yi tey tey RTS pour nga gis ci opposition organisée dara mu am ñu jël ko amul presque pour nga gis euh, yenn journaux yi comme ay Soleil ay APS di jël di indi li opposition bi di def cest à amuñu égal accès aux médias d'État par exemple boo xoolee aussi boo demee assemblée temps de parole yi ni koy distribuer am nga amul égal amul benn euh, amul benn euh, équité boo xoolee également post yi assemblée commission yi wala France dafa jël la jël systématiquement commission des finances jox ko opposition pour transparence donc yooyu mooy yu ñu waroon xeex ensuite marche opposition bi de ba def nañuy marche yi bari ñu leen di ñu ñu leen di bundu xatal opposition bi foofu la waroon def euh, focus maanaam liggéey ci euh, def proposer benn statut de l'opposition bañ a laisser laisser divertir par le statut de chef de l'opposition. Mhm. Le véritable chef de l'opposition est celui qui est choisi par le peuple à travers les suffrages. Mhm. mais pas chef de l'opposition le le gouvernement est ko moo ko koy tànn du dëgg tu chef de l'opposition pour man luy l'opposition, opposition bi la luy néewal de l'opposition, parce que tey loo mënti wax ni dañ la nan. Euh, Idriss Seck le chef de l'opposition parce que moo ñëw deuxième après élection présidentielle ñi wax la né c'est Ablaye Wade parce que mom mo am euh, major mo am euh, groupe parlementaire assemblée mais ñi mën nañ la wax Sonko la parce que Sonko ji lu lo mën ti wax mo nekk sur le terrain alors donc débat boobu war nañ ko mën tek ci souf am lu njariñ de désignation bi posé problème bi problème bu ñu le contenu avec le contenant tay ji dañu waroon travailler ñom ci defar statut de l'opposition la wax pas statut chef de l'opposition statut chef de l'opposition ñu wara jël tek feulé jàpp chef de l'opposition dañ koy xex du lu lay jox statut chef de l'opposition yaa koy acquérir ci ay vote mën nañ ne bu ñu defee élection présidentielle ki top ci ki jël deuxième nekk chef de l'opposition bu ñu defaatee élection législative ki ki ñëw nekk deuxième mais mais c'est pas ça qui est important maay chef de l'opposition du chef de l'opposition loolu du njar amulul njariñ askan bi ensuite ñu ciy tudd xaalis boo xam ne xaj na ci askan bi loolu ay waxu caaxaan la li am solo li waran opposition waran gëna gën concentré am statut opposition pas statut chef may jitu du ma jiitu loolu njariñ mais buñu amone tay statut de l'opposition dina tax ñu duggal ci statut bobu ñom droit di am accès ci média public yi nga xam ñepp ko bok du média wu ben parti am accès ci yenn euh, yenn commission ci assemblée d'office am statut par exemple diplomatique boo xam ne dañ leen di institutionnaliser ba diplomate bu président dëkk opposition bi par exemple euh, ay suspicion tey bu président euh, ñëwee euh, jógee bitim réew bu opposition ñu ne day dañuy menacer suñu institution et cetera opposition fulaal boo xoolee 1984 ça fait plus de 30 ans nous avons fait mooy élection locale yi ñu def est-ce que loolu dëgg la lu dëgg du yoon tey bu fi président Macky Sall ne woon dañuy reporter élection présidentielle ak raison bu mënta joxee ñëpp taxaw ne le muy même que opposition bi danaan donc euh, waruñu mën pas am ay prétexte de reporter élection Reporter reporter Reporter élection dafa une exception. Il exception warul une règle mais si élection locale reporter élection ça devient une règle c'est pas normal dëkk boo ci nekkee da war a mën a xam kañ la élection yi pour que ñi nekk ci euh, bopp kuréel yi maire yeex yooyu mën a waajal seen bopp waajal seen bopp pour mën a dem ci élection waajal ñi ñi nga xam dañu bëgg a nekk mair waajal seen bopp ñi nekk ci kuréel te mën a xam seen budget li ñu koy gérer ba jóge fi waaye euh, rëpp ñàkk ko xam aussi dafay am incidence ci même ñi nga xam ne ñoo nekk ci ci euh, war a liggéey ci nekk ci yenn kuréel yi comme au conseil des collectivités territoriales mais ñooñu mandat yooyu ay ay élus locaux lañ ñooñu ñëpp ñuy proroger seen mandat di yokk seen mandat waruñu nekk ci dëkku prorogation de mandat proroger mandat dafa war a nekk exception warutum nekk règle. mais yow àndoo ci daal. non ñu war tenir élection yi lan moo tax ñuy reporter di rek loolu du yoon. mais est-ce élection présidentielle mais supprimer nañ parrainage nga xam ne da doon jël ñetti presque. mais bu on audit bi évaluation bi nañ ko def élection conclusion yi ñu def ko ñu appliquer ko ci législative bañ ko appliquer ci euh, yi tey mënuñu wax fichier bi euh, baaxul baaxul ba élection fichier bi deuxième bu deuxième élection présidentielle fichier bi lañ ko contester fichier à 100 mën nga ne ci lu ci corriger mais mënul tere ñu dem élection tey buñ nee euh, Idriss Seck moo nekk deuxième ci fichier bii la buñ nee euh, PDS moo nekk deuxième élection législative ba nekk groupe par am groupe parlementaire ci fichier bii la mais kon kay war nañ mën a demee ci fichier bi du tere ñu def évaluation bi ak audit bi

bu ñu defoo attention tamit président Macky Sall mun na leen bett aussi de ndax am na signaux ñetti signaux yi mu def yoo xam te ne nekk mu le ma ko avant le 31 a respecter calendrier républicain ne déet ñu bañoon ne dañuy supprimer parrainage bi local nga xam ne parrainage moom bu ci nekkoon bu mu nekk mu mu nangu ñu supprimer ko ci local yi ensuite <laughs> il a réuni tout le le sait alors nañu na ask gis nga boo nekkee mbër da ngay nangu sëgg bëgg rek bëre na ñit ñi nangu sëgg bëre jëm ci élection locale yi ñu jàll ci leneen. yow da nga leen di woo ngir ñu préparer wu ñu préparer wu dem ci élection locale yi même bu am report mu nekk report bu léger un report léger de trois mois par exemple mars ñu ne bon Covid bi xaw na ci liggéey ñu yóbbu ko juin mais mënoo di reporter di reporter élection di bàyyi ñit ñi dans les légitimités loolu du dëgg du yoon. kii la élection locale yi boo ko boo si bàyyeen parrainage bi pëcc rek la indi yow par élection présidentielle nga xam ne moo gën a yomb organiser parce que du bari candidat quinze candidats maximum mu doon am problème mu xool parrainage léegi élection locale yi te te fële lépp conseil constitutionnel léegi fii nga war ko décentraliser pour contrôler parrainage yi yaa ngi imaginer pëcc xoo bi muy am ensuite période Covid ñi ñuy dem di uti ay parrain day compliqué ensuite nga boole par élection locale musul am filtre nga ñëwandoo rek bëgg ci dool def ñaari filtre def parrainage def caution musul am caution musul am parrainage musul am caution ñu bëgg nga bëgg ñëw defandoo ñaar yëpp mais loolu day compliqué donc je pense que mun nañu dindi parrainage yi bàyyi fi caution bi te caution bi tamit ñu def ko mu équitable tey mënoo ne caution laaj caution coalition bu mel ni soppi bu PDS laaj ko ah wala coalition mel ni bu APR maanaam Benno Bokk Yaakaar nga laaj leen 10 millions wala 20 millions ñoom nga xam ne ci Sénégal yëpp la ñuy déposer seen candidature nga ñëw laaj laaj euh, koo xamante ne nii Tëngéej rek lay déposer candidature am wala koo xamante ne nii Thiès rek lay déposer parce que coalition kii élection locale kay bu ñu ko wax mais ay candidature au niveau local donc foofu question bi war nañ ko rek rendre plus équitable ba nga xamante ne une coalition qui se présente euh, sur 57 euh, sur 557 collectivités territoriales On a la même chose sur une coalition qui représente peut-être sur 5 ou 10 collectivités territoriales euh, c'est ça de rupture d'égalité pour chaque collectivité locale booy présenter c'est égalité entre les candidats donc cette une euh, question à blâmer, on vais la corriger mais il faut que je me quand même pour m'en filtre c'est le peuple qui reste souverain a nga affaire troisième mandat du affaire ay texte de affaire ay États-Unis de bindul ne waroo am plus de deux mandats mais problème mu gentleman euh, problème mu élégance républicaine là. kenn bindu ko fait alors euh, jii ñëpp xam nañ ne bi ñuy texte bi di que le mandat est de 5 ans il est renouvelable une fois à l'article 27 nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs mais nous xam nañ lu ko xam donc bu fekkee ne am na faay bu tax ñu war fa pour demander un troisième mandat loolu xam nga ne Les sénégalais yi sont ko Les sénégalais yi lu ñu may loon Ablaye le président Macky Sall xeexoon loolu je gëmu mu toogaat naan day laaj troisième mandat et heureusement il faut aussi le dire Si léegi waxuñu ne gisuñu ne man gisuma wax day troisième mandat maintenant Euh, waroon na nag gën a dalal xelu Sénégal yi mais wax na ko quand même waxati ko aussi ñun nit aussi ñoo indiwaat débat boobu mais dama ne fii képp ku fi demande ay troisième mandat citoyens yi ñooy génn du xeexu politiciens yi rek mais xeexu citoyens yi la donc Afrique xanaa nga jaar ci ay nga ay nit euh, jaar ci ay cadavre pour am troisième manda waaw moom laa moo tax ma ne la del xool dina ay ay pour mu pour mu jàll il faut mu rey ay nit est jar na ko pour jàllale même Ablaye Wade demande na ko mais ay nit dee ci mais terewul jàllul donc del xool Côte d'Ivoire xoolal Guinée del ay nit ay bakkan yu bari na fa tuuru loolu lu ko fi jar dara jaru ko ci àdduna nguur yëpp booy gis day jeex bu dul nguur yàlla na jeex jeexin bu rafet gëw ma ne man président Macky Sall dina laaj troisième mandat man gëw ma ko parce que gëm naa ne war na am na intelligence politique bu koy permettre mu xam ne sénégalais yi bi ko Ablaye Wade demandé dañu taxaw te gisuma mom tam ban argument la mun joxé ba mun limu limu waccu won euh ci ca 2012 ne Ablaye Wade amu ci droit mom war ko mëna mëna mëna mëna mun demandé maintenant malgré ça mu ko demandé le peuple reste souverain nit ñi taxaw né ko du fi am troisième mandat du affaire politicien yi affaire citoyen yi la du affaire texte affaire esprit esprit texte yi la parce que texte loo ko bind bind bind nit mën na ci jaar ut si ndey ji seex ndey ndey euh, nuñ koy waxee mborox porox ndoll ma génn ci donc du problème mu texte Sénégal war nañ dépassé nit di manifester ñu koy bundu loolu vraiment mën nañ ko xalaat si dëkk yoo xamante ni mooy dëkk dictature mais Sénégal war nañ dépassé loolu nit di manifester ñu koy bundu xatal dafa war a banal que nit ki manifester et et et je je je me dis que y a parfois excès de zèle quoi parfois je pense que même euh, yenn ay euh, initiative personnelle lay don mais gëw ma ne war nañ fi mën a Y'en a marre qui manifeste lan la mën indi euh, danger ci dëkk bi loolu c'est le droit la li ngay xaalis bi ngay dépenser policiers ngay mobiliser pour tas marche wala tas manifestation mo gëna bari xaliss bi ngay eh, dépenser wala policiers yi ngay dépenser pour encadrer marche ya xayt nañuy encadrer marche lool moy jëmmal taru Sénégal jëmmal suñu taru démocratie tay ji dañu wara xol ku yokkul tur waroo wàññi tey jii bu ñu li xew si suñu sous-région Mali Gambie partout fépp fo dem si si aduna bi mu ngi yëngatu tay nga xol Sénégal tay ku ko yëngal rek am nga responsabilité historique bu reuy donc bu marche amé nañ ko encadrer ñi ni marche wax seeni ñaxtu parce que ñaxtu ci kaddu mo gën ñaxtu ci euh, ay ay ay nganaay nañ bay ñi ni di ñaxtu si seeni ndax te ñu mënul ñaxtu ci kaddu nyaktu, nganaay la ñuy ñaxtu te lolu Sénégal ñaan nañ yalla buñ fa yegg te buñ fa bañé yegg nak dañu wara bay ñi ni di ñaxtu